الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا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 طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور آمالهم من خزائن جوده التي لا تعد ولا تحصر وجعل لهم يوم عيد سعيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وضاعف فيه مواهب الأنعام ألا العالمين أحمده وأشكره جمل العيد بالسرور وأوجب فطره وحرم فيه الصيام وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وسع موائد الرضوان على من صرح صدره بالإسلام وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد الأنام ومصباح الظلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته يا معشر من كنتم بالأمس صائمين قائمين لقد لقد مضى عليكم شهر وأنتم في جهاد كريم وطاعة مستمرة لله عز وجل تجاهدون شهوات بطونكم وفجوركم وتصبرون احتسابا لربكم على الحرمان المؤقت منها لقد صمتم رمضان ايمانا واحتسابا وصليتم لله قانتين وعبدتموه خاشعين وتقربتم اليه بكثره تلاوه القران والذكر والدعاء والاستغفار واكثرتم من البذل والاعطاء والاحسان واخرجتم زكاه فدركم للمستحقين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 وخصنا بضيافة عيد السرور على تواقب أيامه وجعلنا من أمة سيد المرسلين المشفع يوم المحشر أحمده وأشكره على ما أولى من جزيل النعم وأستغفره واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما هلل محلل وكبر اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ربكم وتعاونوا الا ما فيه خير لكم ونفع وسعاده لاوطانكم وحافظوا على آداب دينكم وراقبوا الله في أولادكم ونسائكم ولا تهملوا تربيتهم وصنوا أخلاقهم مما لا يليق وجنبوهم موابق الفسوق والفجور وزودوهم في كل حين بالإشارات النافعة والنصائح الغالية مروهم بأداء الصلوات الخمس في الأوقات وشهود الجمع والجماعات والمحافظة على صائر عبادات وأحسنوا إلى نسائكم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا ويأمر الرجال أن يعاصروهن بالمعروف ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وعليكم ببر الوالدين والإحسان إليهما وأخرسوا كل الحرص على رضا على رضاهما فإن رضا رضا الوالدين سعادة في العاجل والعاجل واحضروا غضبهما فإن غضبهما شقاء في الدنيا ووبال في الآخرة وعليكم بإصلاح ذات بينكم وصلة أرحامكم وإطعام الطعام وإفشاء السلام والتمسك بمداعي الدين القويم والتخلق بأخلاق القرآن العظيم والاهتداء بسنة النبي الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتدابروا ما فرطتم في جنب الله وحضنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقات واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع وصوموا من هذا الشهر ستة أيام فقد رغب في صومها خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء منكم من طريق إلى المصلى فليرجع من أخرى كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bésu tey bii mooy bésu kori mu nekk bés boo xam ne bi araab na ku ci woor bés la boo xam ne bi li ci daggan mooy lekk mu ne woon nag weer woo xam ne suñ koy xool lañ cay gis fukki weeri ak ñaar yi yàlla amal ci at mi wenn weer wii ci la ñuy waajale fukk ak benn yi nan lañ ciy def bi ngeen di woor bi nuy woor lépp loo xam ne borom bi tabaraka wa moo ko tere woon jéem nañ ko moyt lépp loo xam ne moo ko santaane woon jéem nanu koo def soppante nañu bëggante nañu yéenente nañu sarax nañu ñi amul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 ila sufufikum fa yumazziqaha fa tadhhaba quwwatukum wa yazul izzukum yàlla mi nga xamee ne moo nu amal bi mu nu amalee lan moo tax mu amal nu yàlla ne wa ma xalaqtu l insa wal jinna illa li yaabuduni binduma nit ak jinne lu dul pour ñu jaamu ma man yàlla loolu rek laa leen doy maa uridu minhum min rizqin wutuma ci ñoom alal wutuma leneen ci ñoom ñu nangu ne ma yàlla jaamuma rek laa soxla ci ñoom kon ñu gis ne nit ak jinne li leen yàlla sante mooy ñu nekk ay jaamam nangu koo jaamu jaamu nag yàlla ku ne xam na ci lan lañ ko tegoon lislaam ni mu tëddee ci juróom lañ ko tëral gëm yàlla gëm ne mooy boroom mu nekk loo xam ne danga koy fas ci sa dënn wax ko ci sa làmmiñ di ko jëfe ci say cër du lu ñuy wax ci dën làmmiñ rekk te duñu ko jëfe lu ñuy wax la fas ko ci xol wax ko ci làmmiñ di ko jëfe ci ay cër loolu moo tax lislaam jóg suñuy xool ñun ñëpp kenn ku ci nekk sa kër am na mbooloo waaye mbooloo yi nekk ci kër yi yàlla waxul ne waa kër ga nañu julli ca bër biir kër ga lan la yàlla wax yàlla dafa wax ne waa pénc mi nañu dem ca pénc ma di jullee ja ca jàkka ja ca pénc ma lu tax ñaar solidarité ak partage bi nga xamee ne bi social bi ñuy def ci pénc ma loolu la yàlla bëgg ñu taxawal ko foofa mais bu kenn ku nekk toggee ci sa kër yore sa yëf yi bopp doo xam lu sa moroom man ak lu mu mënul te yàlla bi muy def nit ñi dafa def ñu tanente te ku tane ku nekk la nga ka nga tane la tane nattu la ci yow koo tane ku nekk la nga tane yow mi ko tane nattu la bu la yàlla teg lu tax mu teg la ko parce que yàlla dafa bëgg nit di dimmali moroomu nitam te nag pour ñu mën dimbalinte foog ñu am fu ñuy daje moo tax ñu ne nañuy dem ca jàkka ja waa penc mi nañuy dajee ji ca jàkka ja bu ñu dajee ca jàkka ja fa lañuy ñuy miinante fa la ñuy soppante fa la ñuy bëggante fa la ñuy xamee ñi am fa la ñuy xamee ñu amul fa la ñuy xamee ñi man fa la ñuy xamee ñi mënul su ko defee waa penc mi di dimbalinte ci seen biir parce que dañu wax ne li salaati maahiyatun julli dafa am le pourquoi dafa am lu tax ñuy julli du rek dañu nodd ci subaa rek ñu ñëw rek julli ku nekk danaat sa yoon déedéet loolu yàlla soxlaawu loolu ñëw rek julli dem sa yoon loolu yàlla soxlaawu ko julli dafa am le pourquoi li salaati maahiyatun maahiyatu salaat lan la julli dafa am lu ko tax a jóg li ko tax mu jóg mooy lan assalaatu tanha anil faxsaayi wal monka lu salte lu ñaaw lu beggandi luy dindi sa personnalité luy dind sa dignité luy tax fu la nit ñi seenee moytu la lépp bépp xeet bu bon bu tax nit ñu koy tudde ku bon la xeet yooyu yëpp yàlla da koy bañ ci digge ci jullit mu nekk ci moom kon képp koo xamee ni ki yaa ngiy julli te rambaaj nga julleeguloo képp koo xamee ni yaa ngi julli di sàcc julleeguloo képp koo xamee ne da julli te workat nga julleeguloo képp koo xamee ne dangay julli te rambaaj nga julleeguloo lépp loo xam ne lu ñu tere la kuy julli di ko def julleegul lu tax parce que yooyu nga xamee ne yàlla la koy tere ñun jullit yi buñ ko bàyyee ñun ñëpp ñooy nuroo li yàlla tere ñun ñëpp suñ ko bàyyee ñooy nuroo te nag dañ xool dañu xool ci suñu bopp ndax ñun ñoo nuroo walla déet ndax soppante nañu ndax bëggante nañu ndax wóolunte nañu ndax dinañ dimbalinte ndax bàyyi nañu jëw ndax bàyyi nañu rambaaj bépp xeet loo xame ne lu bon la yàlla da ko tere kuy julli moo tax di ngay dégg ñu naan diw boroom xam-xam la may wax ne boroom xam-xam du ku ku jàng ku nekk mooy am boroom nekk boroom xam-xam yàlla wax ne ne laa yastawi alladina yaalamuuna walladina la yaalamuun yàlla nee na ñi xam xàmme mënuñu yem ak ñi yem ci xam kese te xàmmewuñ ku xàmmewul amul xam-xam ku am xam-xam du fenn ku xàmme du fenn lu tax du fen parce que dafa am taqwallah ragal yàlla moo nekk ci moom te képp koo xamee ne kii ragal yàllaa ngi ci yow dootoo fenn ku ragal yàlla nekk ci yow doo fen ku ragal yàlla nekk ci yow doo jëwaate ku ragal yàlla nekk ci yow doo doon rambaaj ku lekk ragal yàlla doo lekk alal ju la lewul ku lekk koo xamee ne kii lu nekk man nga ko lu nekk sañ nga ko jomb lool sa bopp dara julleeguloo asalaatu tanha anil faxsaayi wal munkar lu salte lu ñaaw lu begg ndi luy dindi sa personnalité luy dindi sa dignité luy tax foo waxe ñu ne cam julli da koy tere ku nekk jullit ku ne jullit la ku nekk loolu julli tere na la ko kon jullit nan la mel dañ wax ne wallahu fi awni al abdi maa daama al abdu fi awni axihi yàlla day seex dàkk di dimbali jaam feek jaam a ngi sax dàq di dimmali mbokkum jaamam lu tax nit julli ñu nangul ko julleem mu woor ñu nangul ko wooram mu dem màkk ñu nangul ko dem màkkam mu dimbali ay nit ñu nangul ko li mu ñi mu dimbali mu dee dem safara te day am nit dina jaamu yàlla ba dee dem safara lu koy waral parce que yooyu ñu tere yépp mu ngi koy def ci biir nit ñi te yàlla ku tooñ sa boroomu jullit yàlla mënula ko baal parce que yàlla du tooñ te su ma la tooñee yàlla baal ma yàlla tooñ na la tooñ na ma yàlla mënul baal jullit bu tooñ moroomu jullitam bu àllaaxira kenn ku nekk ka nga digaale loon se defuloo ci moom lala war sa yiw wu baax wa nga am dañuy xool la nga ko tooñ na mu toll ñu tibb ko ci si lu baax jox ko ko jël lu toll la nga lu bon la ko def jox la yow nga gis koo xamee ne kii day for fay bor ba borom ba ba tuyaa ba jeex yàlla dugal ko safara ñooñu lañu tudd al muflisuuna jaamu nañu yàlla yàlla nangu na seen jaamu julli nañu mu nangu woor nañu mu nangu joxe nañu azaka mu nangu lu ñu def lu baax lu nekk nangu na ko waaye ku nekk tooñ nañ la ku nekk tooñ nañ la koo xamee ne kii amuloo fooy yem ci nit ñi lu la neex wax lu la neex def soo deewee doo dem aljana li nga liggéeyoon ci lu baax yépp da koy faye bor kon njullit ki ko yàlla tudd mooy kii moytu li mu tere wax naa leen ne li salaati maahiyatun assalaatu tanha anil faxsaayi wal munkar lu salte lu ñaaw lu beggandi luy dindi personnalité nit ki luy dindi dignitéem luy tax fu ko nit ñi gise di ko moytu lépp lu bon lu bon rek xeet lu bon lu mu mënta doon rek jullit tere na ko ku ku ne jullit la moo waral penc mi bu ñuy bu ñuy julli ba àjjuma jot ñu ne tëj leen jàkk yi bu ñu tëjee jàkk yi fan la ñuy ñëw ci jumaa ji parce que penc ma ñoom rek ñoo fa daan daje léegi penc yépp ñooy ñëw ci jumaa ji kon gën na yaatu wala gis nga koor gi jeex nii lan la ban la yàlla ban buntu la yàlla ubbi buntu dem màkk képp koo xamee ne kii jullit nga am nga paasu màkk da nga war a dem màkk li man istataa ilayhi sabilan moom la ñuy wax ku ku mën a dem màkk man ko def foog nga dem benn yoon màkk boo ko mënee ñiy mayee paas te demaguñu nag dañu xam ne dañoo war a dem màkk te bàyyi biyee yi ñuy mayee te dem màkk ku demagul màkk waroo maye billet màkk da ngay dem màkk ba pare di may billet wala nga àndax ñi ngay may waaye di may rek te doo dem loolu wóorul te yàlla ku mu dimbali ba nga matal juróomi ponk lislaam ku ne danga ci war a sant yàlla nga maanaam wa matal juróom yi mokkalu mataluloo ko def def xañ nga sa bopp lu rëy rëye rëy kon ku mën a dem màkk na dem màkk la fa nekk lan la réew yi ñoo fay daje fii réew Sénégal rek ñoo fi waa Sénégal rek fi dëkk suñ demee màkk ñëpp fay daje te ña fay daje ñëpp bu ñu déggante te bu ñuy juj julli kuñ fa mën a jiital boo jiitalee chinois bi boo jiitalee japonais bi boo jiitalee allemand bi ku ci mënta doon buy buy kabar allahu akbar lay wax lu mu mën a jàng te waxul alquran julleem baaxul faatiha lay jàng bi waa Sénégal di jàng moom la allemand yi jàng moom la japonais yi jàng moom la chinois yi jàng moom la américain yi jàng ku tuub ku nekk booy julli fatiha mooy farata ji li ngay jàng te par la force nga koy jàng loolu li ci yàlla wone dafa bari bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil yàlla mooy ku nekk ci àddina ku nekk kenn du la jox li ngay dundee koo mën a doon li nga yor yàlla la ko jox te lii la yàlla jox na ku nekk lu mu la jox nattu la ci yow koo tane ku nekk soo ko dimbaliwulee bu ëllëgee di nga am problème kon ku ku ku féetee koo tane danga ko war a dimbali même booy togg lu neex te naroo cee maye fexeel ba loolu bu ma xeeñ ñi nga dëkkal ñi sant Sall moom bu ñuy togg duñu duñu du xam nañ ni ñuy togg parce que du bokk ñoom rek ñooy bokk moo tax seen seen yëf kenn du xeeñ kenn waaw noonu la ñu bëgg koo xamee ne kii doo ngay togg doo ci kenn fexeel ba li ngay togg bu mu xeeñ waaye bu xeeñee gaa yi rek gaa yi war nañ cee ñam ngeen gis ne lislaam dafa yaatu solidarité amul ci fen lépp lu ñuy wax ci lislaam lañ ko jëlee xamuloo ne boo déggee ñu naan an nafsu bin nafsi xamuleen lu tax bu fekkoon ne woy bon yi ñii tey di rey buñ ci jëloon kenn ru yóbbu ko place de l'indépendance woo ñëpp ñu ñëw ñu rey ñu rey ko comme ni mu reyee ki mu rey kenn dutul rey màkk da ngeen foog ne dañuy rey jamono ju nekk du ñu rey jamono ju nekk lu tax parce que la yàlla wax la ñuy jëfandikoo te ku jëfandikoowul charia am nga responsabilité bu rëy charia nag li mu santaane mooy an nafsu bin nafsi wal aynu bil ayni wa sinnu bi sinni wal juruh qisaas bakken ku ko fi jële nañ fi jële sa bakken ku fëq bëtu nit nañu xool bët bi nga fëq ñu fëq sa bët boobu ma ne bu fekkoon ne dañ ko def benn yoon kenn dutu ko def ñi fiy wax loo ñu warul wax ci reewande kese bu ñu leen yóbbu woon place de l'indépendance duma leen ba ñu yuuxu bu baax a baax ba ñëpp dégg leen ñu yuuxu loolu ñuy wax kenn dutu ko fi def waaye su fekkee ne lu nit def rek baax na dara du la ci fekk mais lu leen neex def wa nafsu ka tifli in tuxmilhu sabba ala xubbi rada wa in taftimu yanfatim nit bakken bu mu mënta doon moo gone guy nàmp te kenn feralu ko ñooyam lu mu tàmmal boppam te kenn feralu ko bu loolu nekkee ci xel rek mu jóge defi ko ni ñuy ferale xale noonu la ñuy jubbanteeku jubadi bu fekkee ne ku jubadi dañ lay dañ lay dañ lay raay nga yokk sa njubadi te lu yàlla wax ku ko dindi rek gis ko xam leen ne réew mi dafa am lu fi nekk lu xew loo xam ne lii nit ñi xooluñu ko ba tey mais am na benn génération boo xam ne bii ñoo say sañ jamaate ñoo sam xotti nit xañ def lu nekk te duñ ci am benn problème mais ñun ñi nga xamee ne ñoo leen ñoo leen féete ndax ñoo leen féete mag ku mas a foog sa moroom ca jàq ja ba sëllaxante suuf xeer rëcc dal ko ci bopp muy nàcc boo dawee dem seen kër sa biir rondal nga ngay dugg lu tax parce que doo bëgg gi ma kenn bëggul gis deret mais léegi xale yi ñooy xotti seen bopp mer ba pare soo ko jamaate lu tax parce que am na am na génération boo xam ne bii lu ñu nàmp du du nàmp ñu seen weeni ndey te léegi ñoo nit ñi ñoo tolloo ñoo nit ñi ñoo tolloo ñu ngi ci dëkk bi lu bon lu nekk ñoo ko fiy def parce que ay rab lañu dañu mel ni ay nit te duñu ay nit lañ leen doon nàmpal moo baaxul am na fi at yoo xam ne yi ñeen ñetti xeeti meew boo nàmpee bii ba am nangam ñu ne bii ji wax nañu indi la beneen nga nàmp boobu boobu boobu gi ñu indi la beneen après ñu feral la ñooñu ñoo fi màgg toll ni nit ñi bindu nit la yormee yor mais duñu ay nit te ñu ngi ci dëkk bi kon yal yàlla musal ñu ci yooyu ah wax jaa ngi bëgg bari te nit ñi dañoo xiif kon dañuy gàttal loolu rekk ñuy gërëm le président ndakaaru gépp nag ñoo la gërëm ci lan jumaa ji mag ci ndakaaru màggetoon lool moo ñu ko defaral ajjuma ji passé lañ ko doon ubbi moo tax ajjuma ji passé ñun ñëwuñu julli si fii ñu nga demoon Blanco ci li may dégg man te wóoruma xaw ma la nee nañu ban ànnee la ñu waxoon ne lañ defar jumaa ji 1904 man. sama baay loolu la ma waxoon parce que moo jumaa ji ñoo maase quatre la juddu ñu déclaré ko six ma ne moox jumaa ji ñoom maase bi muy dee am na quatre-vingt-seize ans kon jumaa ji yàgg na lu yàgg nag am na xam ne bu fa tolloo dañ ko war a dimbaliwaat bi ñuy jéem te manuñu moo ci dugal loxaam kon li mu def ndakaaru gépp la ko defal kon ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla defal la tawfiqul ilahi barakati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun mënuñu la fay mais yàlla mi moom néeg ba dina la fay loo bëgg yàlla yàlla defal la ko ci loolu nga def yàlla mën na ko sañ na ko yàlla yàlla def ko ministre de it ñu ngi koy gërëm seen taxawaay ci li ngeen def fii le gouverneur ñu ngi leen di gërëm ambassadeur yi nga xamee ne bu Maroc ñu ngi koy gërëm ku bees ki Nasri euh, ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal ci sa dëkk nga ñëw fii Sénégal mooy sa ñaareelu dëkk ñun Maroc mooy suñu ñaareelu dëkk suñu demee Maroc dootuñu nekk ay sénégalais ay marocains la ñu nekk ñoom marocain yi bu ñëwee fii dutuñu nekk ay marocain ay sénégalais la ñu nekk parce que jàkk ji ku ne xam na fu mu jóge ñoonu ko fi def seen loxo génnu ci ba tey jii fi ñu nekk seen loxo génnu ci lii ñuy lal di ko jullee ba léegi ñoo ko fiy indi kon seen loxo génnul ci ndakaaru génnul ci Sénégal ba tey yan yàlla defal leen tawfiqul ilaahi ah ñuy gërëm nag suñu maire yi maire plateau ñu ngi koy gërëm ku gërëm maire plateau yi di nga gërëm maire ville parce que ñaari maire yi ñoo leen moom du dëgg personnel lu grande mosquée yépp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal seeni taxawaay rafet na ah waaw ambassadeur du Turquie tamit ñu ngi koy gërëm lu tax ñu koy gërëm ñoo ñu tabaxal daara fii indi fi ay nit ñu jóge seen dëkk ñuy ñëw di jàngal xar yi alquran te nag wallahu fi awni al abdi ma daama al abdu fi awni axi wa fi lxikami kasratu lixwan li annahu mauna ala hawadidi je vous remercie nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de revenir à la grande mosquée de Dakar à l'occasion de la prière de la Corité. C'est une grâce après deux années de Covid, une maladie qui a traversé le monde et qui n'a pas épargné le Sénégal. Je voudrais d'abord avoir des pensées pieuses pour les disparus, les disparus de la Covid, mais également pour tous ceux qui nous ont quittés et prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les accueille en son paradis. Nous avons aussi une pensée affectueuse aux personnes malades qui sont restées dans les hôpitaux ou dans les domiciles. Et nous prions pour leur prompt rétablissement. Aux personnes également empêchées qui sont dans des lieux de détention Nous souhaitons qu'il puisse recouvrer la liberté conformément à la loi. Je voudrais saluer l'imam Ratib, Mme Samb, pour son prêche du jour qui nous ramène sur les valeurs qu'un musulman doit développer au quotidien pour que sa foi soit acceptée, sa, ses dévotions puissent être acceptées. Nous sommes dans une société où les valeurs ont tendance à être dégradées. Je voudrais en tout cas faire mienne ces recommandations. Je voudrais également dire à la communauté nationale que nous vivons une période de trouble dans le monde. La Covid a été une pandémie qui n'a épargné aucun pays au monde. Et cette pandémie a entraîné des difficultés économiques et des difficultés sociales. Nous avons vécu les efforts que mon gouvernement a entrepris pour atténuer les conséquences de cette pandémie, atténuer les souffrances, mais ce n'est pas suffisant. Voilà que nous ne sommes pas encore totalement sortis de la Covid, qu'une guerre lointaine par rapport à nous, qui se déroule présentement en Ukraine, a entraîné également des conséquences encore plus graves sur la cherté de la vie, sur la cherté des produits pétroliers, sur la cherté des denrées alimentaires, puisqu'il se trouve justement que ces deux pays en conflit aujourd'hui, que sont la Russie et l'Ukraine, sont les principaux fournisseurs de céréales, de blé en particulier, principaux fournisseurs de pétrole. et cela impacte le monde. Nous avons là aussi fait des efforts pour contenir la poussée des prix. Et je crois que tout cela est très important à expliquer à nos compatriotes. Ce sont des aléas extérieurs qui impactent la vie et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est toute l'Afrique qui subit et c'est le monde entier qui subit. C'est pourquoi nous prions pour un retour rapide à la paix en Ukraine, puisque De cette paix en Ukraine dépendra la stabilité économique et sociale du monde mbokk yi ginnaaw buñu sant yàlla julli ci sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yokkaat sunu cant ci borom ndax ñaari at a ngi nii mënuñu woon ñëw julli ci fii korité ndax mbas mi fi nekk yàlla nag wàññi na ko. waaye ba tey ñuy bàyyi xel ci li waa kër docteur wax waaye nag ñu sant bu baax bi ñu mayee ñu ñëw julli ci ginnaaw sunu imam ratib ah, ma koy nuyu di ko ziar di ko sant bu baax baax ñaan yàlla mu yokk taxawaayam yokk wér-gu-yaramam di nuyu grand serigne de Dakar Blaye Matar Diop di nuyu mbokku Sénégal yëpp di leen ballu ax te di leen baal àq ci bés bu tedd bi di bésu korité ñu ngi ñaanal yàlla ñu nga xam ne mooy woy dawlu yi suñu borom wàcce yërmandi si ñoom te xare leen aljanna ñu ngi ñaanal itam ñi feebar tëdd suñu borom mun leen yëkkati moo xam ñu nekk ci lopitaal yi wala ci kër yi ñi nga xam ne it caabi daf leen féete ginnaaw ñu ñaanal leen suñu borom wàccee si ñoom tawféex euh, bés bi nag dafay bës bu baax loolu imaam wax na ko wane na it jikko yi nga xam ne képp kuy jullit war nga ko solowoo loolu nag xanaa dañ si bàyyi xel ñun ñëpp rek jéem ko jëfe euh, muy valeur l'islam muy valeur mbaax ak jub ak ngor Euh, loolu ak yeneen yi mu wax yëpp mënuma si jaaraat képp kuy doomu Sénégal war nga ci bàyyi xel ndax jikko yi nag ñu ngi bëgg a yàqu te jikko yi li koy defar d'abord si kër yi la parce que yar bi jiitu mooy yar bi waajur yi di yar ay doomam ensuite lekkool doog a jël société bi doog a jël kon nguur gi moom mooy étage bi mujj si yar doomu aadama ndax bu bu yegsee ci moom rek ça veut que yoon dugg na ah, jafe-jafe dugg na kon nag ñu ñuy ñaan rek ñu bàyyiwaat xel dëgg la jot amatul ci àdduna bi way jur yi amatuñu jotu di waxtaan ak seeni njaboot di waxtaan ak seeni doom pour di leen won li baax ak li li baaxul loolu nag ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel ah, ma koy sant bu baax a baax ci xutba bi mu def tey di wax nag Sénégal ginnaaw bu ñu génnee ci mbas mi jafe-jafe yi bare woon na waaye suñu gouvernement def na quand ay kéem kattanam ngir wàññi coono bi ak jafe-jafe yi loolu pareegul beneen xeex ñëw bu bees bu nekk ci Ukraine ku ne gis na ko waaye xeex boobu li tax mu garaaw mooy ñaari réew yooyu di xeex tey ñoom boo boolee lëkkale seen doole li ëpp si dund bu ñuy jëfandikoo li jël ci wàllu blé muy céréale bi ñuy defaree mburu dama mbokk séeréer yi xam ngeen ni ñu fonkee mburu lébu yi ñemewuma ñemewuma leen a tudd waaye ñoom ponc la gën a fonk donc mburu li koy defar yëpp mooy céréale yooyu tey jii dafa manqué tey jii carburant dafa manqué ndax réewu Russie mooy yor téeméer boo jël ñeent fukk yi ñoom ñoo ko yor ci wàllu carburant kon kooku bu jaayatul foog mu am pénurie foog mu am jafe-jafe mooy li ñu dal fi mu nekk nii wàññi nañu dindi nañu sax taxe yëpp ci li jëm si dundu dund gi waaye terewul du doy kon nag ñu xam ne jafe-jafe yooyu liñ si mën mooy continuer lii suñu wàll ñun état ñu def ko waaye li ci des ay ñaan la ngir jàmm dellu si te jàmm jooju bu dellu see yaakaar naa ne euh, tawféex dina am kon maa ngi balwaat ñëpp ak te du bal ñëpp ak di ñaan yàlla mu may ñu ñu teewee waxtu wi déwén ci anam yu gën a rafet yu gën a baax allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam